lan moo leen seen naqar. man li ma naqari mooy sama xale yi sëñ bi yoolee la rek moo ma naqari. da nga am doom. waaw am naa ci doom de. ban sëñ la. ah sëñ Xaadim Mbàkke. lan moo ko boole xale yi ba am ci. la ko boole xale yi ku taxa ba fii kër sëñ Touba ni dama bëgg xale yi jàngal fii ci xale ci Touba Kër Gol. man sama xale daara sëñ laat gii la daan jànge mu gis xale yi di fi jàng. bi mu gisee xale yi jàng ma ne ko bul dem mu ni man de yaay sama moroom yëpp ma ngay jànge ci señ Xaadim Mbàkke ma ne ko ah fi nga commencé ba Salick Thian jàngal la ba nga ba nga xam li nga xam bu ma sañoon fii ngay toog jàng xale yi yëpp ni waaye sama yer sama yaay bàyyi ko mu ànd ak ñun bàyyi ko mu ànd ak ñun. xam di ba tey ni ma la ko waxee rek xale yi nga gis ñu nekk sama ginnaaw mooy 27 xale di ñaar fukki xale ak juróom-ñaar yoo xam ne nee nañ sëriñu daara bi leen doon jàngal. moo yegg ci seen kaw kon ngeen gis ko nii dégg nga noonu waaw. boo nee dama ne day mel ne daa amut lu am la mi ngi nii kenn ku nekk sa médical ŋàbbu lu am la boo nee du dafa mel ne da nga lu am lu. comme dama ne ñoom dañ ne xarit daara bi leen doon jàngal. man sama bop man maa naan la am na. lu am la mi ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii vingt sept xale ñu ngi nii daara jaa nga nee dama bëgg sax ñu ànd ba ca daara ja ma woon la daara ja nga fam doon jàngale ma nga nee toppal ci man ñëw ñu dem nan dem daara ja xamat nan dem ca daara moo nekkoon fii ca di jàngale beneen moom ca biir la nekkoon ak xale yi nag fii rakkam la la fi bàyyi woon di jàngale moom ci moom ci biir la nekkoon nañ dem woon la mu gën a leer lii lépp ci daara ji la bokk gis nga ko nii but ba but la gis nga ko nii lii lépp moo fi nekkoon ak xale yi néeg yi ñeenti néeg yi yëpp am na yeneen néeg yu ne ci biir mais fee la nekkoon ci biir a xale yi di leen jàngale fee la nekkoon ci man nag sama ñetti doom moo leen tudd sama ñetti doom moo leen tudd ci kër ga sama kaamil loolu na defee sama papa moom moo ko daan wàcceel ci kër ga sëñ xaarib nag bett na ma lool def na ma loo xamante ne ni gin na ci sëriñ Touba sëñ Touba rek laa koy seedeel na ko ma tooñ la ci biir dëkk sëñ Touba bi waaye nag dama jàpp ne tur wi muy wuyoo moom du koo doonut ndax damaa jàpp ne boo seetlee sant Mbàkke juddoo ci dëkk sëñ Touba bi wel na nga war a mel dama jàpp ne da ngaa war a yor jikkoy sëñ Touba waaye moom yorut jikkoy sëñ Touba jikkoy boppam jum fi indi la wala jum jële ca àll ba ñëw ci kër gi waaye nekkul loo xam ne lu mu kii di lu mu lu mu lu mu kii dëkk bi moom jàngale taxu ko woon jog jóg depuis jamono Covid ba ba léegi presque trois ans mi ngi seq xale yi fii ci biir daara ji te kenn mun koo xam. borom kër gi da doon fay man mi dama doon fay sama doom ndax nee na doom ci ñu mujj a jot ci mujj ñëw ci ñëw ci la bokk. loolu ñaanu trop a bu ñu ci dimbalee nag moo gën wax dëgg yàlla parce que daara ji moom dootu ubbi feek sëñ xaadim tegaluñ ñu ko loxo moom dootu ubbi sama bakkan bi laa ci gar nag ba ma ko déggee ba léegi liggéeyatuma xëyatuma sama place dama ko tëj mboora dem naa ba man sama bopp sax lu ma lekk dama ko amul parce que munu maa bàyyi sama njaboot ñu am naqari fi ba pare ma ma ma ma nekk ci àll ba di liggéey. këram gee jàkkaarloo man nag chef de quartier baa ngi nee nee naa ko kër gi mun naa ma ne ko maa moom ñoo jàkkaarloo kër gi moom kenn du fi dëkk ba kerek sama bakkan bii di wàcc kenn du fi dëkk ak waa koñ bi yëpp nag ànd nañ wax loolu nee nañ kër kenn dafa bàyyi bay ba nga ñëw dugg ci biir wax. maanaam kër googu euh, euh, wax naa ko Baye Baye Adama Pouy nee naa ko nag kër gi mu naa mën a ko ciy teg loxo ndax yàq na suñu xale bañ yàqu yàqeet ministre jaay kër gi ku ko mën di amoo kër moom it du fi dëkk bañu nu ci dara lañ ci bañut bañu nu ci dara lañ ci bañut waaw kaay mu nga wàcc suñu kàddu fii ndax li fi war wax bari na yow loo wax nga ni. waaw damaa yaakaar ne nag li ñuy toppee Sonko ay at ñu di ko toppee di ko soow benn nit ñu violé ko violé fii ñaar fukki nit yu teg ñu toppee ko Sonko nag lëjal ko huit fa mu taxaw ñu taxaw fa coow lépp di Sonko Sonko te li li sëñ xaari Mbàkke def fii ci saam moo raw fuuf kon nag ni ñuy toppee Sonko nan ko ni toppee moom it ndaxte tooñ tooñ rek la. nan ko ni toppee. dossier man sama bakkan laa teg ma mii am naa si doom. waaw am naa si doom. am doom am naa si doom sama fukki at la am mu nga fay toog. fu mu dundee ñooy jànkuwanteeg sa doom bokk. man moo koy sigi xool ko li ma méttee. say say sañ xam day ma ko su ma ko gisoon tey jii man sa bakkan bi laa si teg métti na ma toog nag métti na ma toog si kawam yàlla. gis nga si woon na ba bu ko yëgee damaa xëy dem liggéeyi ñu wax ma ko gis nga si woon ba mu ñëwee fi laa fekk yaayam. fekk moo sax yaayam yaayam damaa ñu fekk ñu dem dégg nga suñu Xaadim Mbàkke la tudd surtout surtout seen mën man nag bàyyi moo ko teg bàyyi mu ko sama bakki laa si teg.